mbokki Sénégal ak li ko wër ami internet Thiès Info ñu gis ni coowul Miss da bari lool ci mim réew ci tànnin bi la wala lu ci mën a am dinañ dem vaar xool Miss Sénégal yi nekk ci décennie bi bii passé maanaam fukk at yi nu weesu de 2010 à 2020 ñu xool kan moo dàq ngeen wax ñu kan mooy Missu 2010 ba 2020 waaye laataa loolu itam ñu posé leen question ba tey lu jëm ci wàllu Miss yi kan moo organiser ren ji Miss Sénégal ndax mooy sa Ambra Gomis la ndax Amina Badiane la wala Aziz Samb comme ci man doon da ngay tàppe un pour Amoura Gomis deux pour Amina Badiane trois pour Aziz Samb mbokk yi ñu ñëw ak yéen ci Miss 2010 Miss 2010 mu ngi wéy ci turu Tako Fatim Thiam am lu toll ci dix-neuf ans nekkoon élève en classe de terminale ci jamono ji muy nekk Miss moom mi ngi fekk baax dëkk bu ñuy wax Ndakaaru Njaay Jal Diop rawatina ci koñ bu ñuy wax Sacré Cœur 3 raaye boobu mi ngi ko jëlee woon ginnaaw bu ko Kati Chimère jaw jëlee en takko Tako Fatim Thiam njool lool taayam di un mètre quatre-vingt Tàkku Fatum Thiam mën nañu wax sax ni moom dafa xees Miss Sénégal 2011 ba tey moom mii di Tàkku Fatum Thiam ñëwaat ak doole daal di koy jëlaat kon nag Fatim Tàkku Thiam mi jël ko ñaari yoon ci atum 2010 ak atum 2011 Miss Sénégal 2012 ñu am ki nga xam ne mi ngi wuyoo ci turu Penda Ly Penda Ly Miss 2012 mi ngi judd ci atum 1991 ay moom itam ba tey Dakaaru Njaay Jal Jóob la fekk baax ay Penda itam jollool teg ci xees ci atum 2013 Miss Sénégal 2013 Marie-Thérèse Ndiaye candidate bi nga xam ne mu ngi bàyyoo ko woon ci dëkk bu ñuy wax Mbour. am lu toll ci 23 ans. ci jooju la jamono Marie-Thérèse Ndiaye mi ngi nekkoon étudiante en licence management et gestion des entreprises. njoolal lool di mesurer 1 mètre 70 86 centimètres et 94 centimètres respectivement en tour de poitrine et de hanche moom itam teem ñuul kukk la defar di teint noir Sénégal 2014 Miss Sénégal 2014 ki nga xam ni moo ko jëloon mi ngi wuyu ci turu Anna Diouf mi ngi fekk baax ci dëkk bu ñuy wax Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar la capital du rail ñu ngi ko doon dàkkantale li nga xam ne mooy taille de gazelle ba tax na ci atum 2014 waa Thiès kaay ñoo bëggee waaye itam ndamoot yi ci am gi nga xam ni am nan ko Miss Sénégal buñ ci jógee waaxu jëm ci atum 2015 atum 2015 nag Miss Sénégal aux États-Unis 2015 Zeynab Koroma lay wuyoo ñu koy dàkkantalee une perle rare Seynab Koroma mi mi ngi fekk baax ci dëkk bu ñuy wax Bignona moom Seynabu mi elle aussi un activiste une humanitaire une immigrante une bénévole une étudiante enseignante et une infirmière Miss Sénégal 2016 Ndeye Astou Sall lay wuyoo moom Ndeye Astou Sall mi ngi fekk baax ca Pikine mi nga xam ne moo nekkoon l'ambassadrice de la beauté sénégalaise en 2016 jooji la jamono Ndeye Astou Sall mi ngi amoon lu toll ci vingt ans fi toll nii boo xayma war am vingt cinq ans jooji la jamono waa Pikine gi yépp ànd maase kontaan ci am gi ñu am Miss Sénégal bu ci jógee ñu dem ci atum 2017 Miss Sénégal 2017 Yacine Dieng Thiam lay wuyu moom mi ngi am lu toll ci dix-huit ans seen Dieng Thiam mi mi ngi fekk baax ci Sky benn dëkk ñaari gaar la capitale du rail boobu nekk seen ñaareelu miss ci 2010 à 2020 ci jooji la jamono kon mën noo jàpp bu baax a baax ni waa capitale du di waa Thiès bëgg nañ ci lool ci am gi am ñaareel bi miss Sénégal atum 2018 miss Sénégal Aïssatou Fili Aïssatou Fili am lu toll ci 22 ans taille 1 mètre 85 di ab étudiante waaye itam doonub mannequin ba ko laajee lu di ab devise am mu ni dama doon jamais moom la mbir sax xewutoon fii ci Sénégal ma nga xewe woon ca France moom ay Aïssatou Fili jël troisième topp ci ginnaaw Miss France ak Miss bi nga xam ne moo jóge woon ca Chine bu nu ñëwee ci atum 2019 Miss Sénégal 2019 Alberta Diatta la yuyo am 19 ans yor teint noir ngi fekk baax ci dëkk bu ñuy wax Ziguinchor kon nag waa Zig ñoom ñoo gagné ci atum 2019 li nga xam ne mooy Miss Sénégal bu ñu ñëwee ci ren jii atum 2020 Ndeye Fatim Dione Ndeye Fatim Dione candidate de la région de Fatick moom nag ci atum 2019 mooy sacré reine de beauté 2020 raye ñu joxe ko ko fële ca Dakar ca Grand Théâtre Ndeye Fatim Dione mi ngi am lu toll ci 21 ans di élève en classe de terminale nday faatum Dione mi ngi fekk baax Fatick ba tax na nag mbokk yi loolu mooy miss yi ñu gis ci décennie bi maanaam ci atum 2010 ba atum 2020 di 10 miss yooyu la 10 miss ma leen di laaj yéen mbokk internet yi ana kan moo ci dàq waaye nag fi mu toll nii am na ci ñu baree bari ñu réere waaye itam umpalee naka la ñuy tabbee li nga xam ne mooy miis yi ndax kat miis bokk na ca lañ koy tabbee muy intelligence waaye itam niveau d'étude ba ci sax li nga xam ni mooy culture générale kon kay xëy na dina am ay at ci kanam daanaka képp koo xamante ni rek jàngoo pour nga doon miis dina doy waar lool ci yow dina yéeme lool ci yow waaye itam képp koo xamante ni itam amoo culture général dina yéeme lool ci yow ba mu tax ñenn ci askanu sunu gaal daal di lànk bu baax a baax a baax ci nii nga xam ne ñu ngi koy tabee léegi Miss Sénégal ndax kat ñoom dañoo jàpp ni mbir mi ñu ngi koy amalee ci wàllum rafetaay maanaam beauté donte nag bu ñuy wax miis rafet moo tax loolu nag jur polémique bu rëy rëy rëy ci askanu sunu gaal waaye nag bu ñu xoolee ginnaaw Ziguinchor Bignona ak Mbour dëkk yi gën a fës te di ko jël Dakaaru Njaay la ak fi nga xam ne mooy Ceeskaay fatik kon mi ngi koy soog a jël kon nag Fatick mu ngi koy soog a jël ci atum deux 2020 bi ñenn ñi sax jàpp nañ ni xëy na li président Macky Sall dëkk ca Fatick moo tax ñu jox ko ki nga xam ni mooy doomu Fatick waaye itam askanu Sénégal gi yëpp ànd maase booloo tey lu itam yenn miss yi nga xam ni mënuñu sax prononciation bu jub waaye itam miss yi nga xamante ni seen démarche baaxul ak itam yi nga xam ni français yi ñuy laaj la yàlla xam doy na waaye itam moo xam ku ñuul wala ku xees en tout cas la ca ëpp solo mooy amal tee naturel lu ci man di buñ lay tabb dinañ xool ci teint dinañ xool li nga xam ne mooy sa démarche bu baax a baax a baax waaye itam dinañ xool bu baax sa niveau intellectuel nag miss boo xam ni jàngoo ba pare di bëgg ni da ngaa ne bëgg a nekk miss bëgg a gañee la nga xam ni moo lay may du leen lu dul dem jàngi bu baax waaye itam gëstuwaat bu baax a baax a baax ci li nga xam ni moom mooy li fi suñu mag ñu baax ñu bàyyi gëstu culture mag ñi waaye itam gëstu li nga xam ni mooy jaar jaaru mag ñi ak itam historique Sénégal bu baax a baax a baax a baax ngir saa suñ la mën a posé question bu jëm ci wàllu mag ñi nga daal di ciy tontu bokk na ca Aline Sitoé Diatta bari na luñ koy laaj miss yi nga xam ne ñu ngi askanu suñu gaal Lat Dior Diop Ngoné Latyr Diop ba tey ñi nga xam ne ñooy jigéenu ndeer tamitam bokk na ci question yi nga xam ne léegoo lekk dañ koy posé yi les miss dina xayma jàngat bu baax a baax ana lu sabab ñu leen di posé yooyu les questions ngir xool ndax ñoom ñi di ay miis ràññe nañ bu baax a baax a baax dignité jàmbaar fulaak fay fayda fit ak ngor bi nga xam ni moo nekkoon ci seeni maam loolu di wonewaat rek bu baax a baax ni jigéen warul des ginnaaw benn yoon jigéen warul toog benn yoon jigéen li ko war saa su nekk mooy fësal bravouram jàmbaaram ndax kat kenn du wax jàmbaar ci mim réew ci Sénégal te tuddoo ki nga xam ni mooy Aline Sitoé Diatta waaye tem kenn gënul doon jàmbaar kenn gënul bañ gàcca ba raw ña nga xam ni ñoom ñoo dajaloo wan di ay jigéen taal seen bopp li nga xam ni mooy benn nekk di diggéenu di wonewaat bu baax a baax ni kon Miss ci même réew di Sénégal buñ koy tànn ndekete yow démarche rek taxul ñu tànn ko waaye itam kanam gu leer rafet bay nes-nes rek taxul ñu tànn ko waaye itam njoolaay rek itam mësul tax benn yoon ñuy tànn li nga xam ni mooy Miss donte cala nag am na ci solo lool ndax kat képp koo gis mu gàtt di jigéen mësul doon li nga xam ne mooy miis Sénégal. tax na kon mënoo doon Miss Sénégal te sa prononciation baaxul déggoo français maanaam nga nekk intellectuel am niveau d'étude bu kawe lool au nga yegg li nga xam ni mooy seconde première jëm terminal kon nag mbokki askanu sunu gaal képp koo xam ne rek bëggati nga doon Miss Sénégal la la war en premier lieu mooy nga dem jàngi bu baax a baax a baax a baax waaye ginnaaw boo jàngee nga gëstu culture général su li nga xam ni mooy sa historique yu dëkk ba maîtriser ko bu baax ndax day compter bu baax ci li nga xam ni moo jëm ci wàllum Miss waaye itam prononciation lool ci li nga xam ne moo jëm ci wàllum miss. nag mbokk yi miss yaa ngi noonu de 2010 à deux 2020 2010 Fatim Tako Thiam 2011 Fatim Tako Thiam ñëw jëlaat ko 2012 Penda Ly daal di koy jël 2013 Marie-Thérèse Ndiaye daal di koy jël. 13 wuy jina 13 2014 Ana Diouf daal di koy jël ak doole 2015 Seynab Koroma daal di koy jël 2016 Ndeye Astou Sall moom la atum 2017 Yacine Dieng Thiam atum 2018 Aïssatou Fili atum 2019 Alberta Diatta daal di koy jël ñu ñëw ci atum 2020 bii Ndeye Fatim John ji doomi Fatick daal di koy jël jël bu am doole ba tax na kon mbokki Sénégal miss yaa ngi noonu de 2010 à 2020 leen fàtte benn yoon question yi ñu leen posé waaye teem ginnaaw boo seetaanee bile vidéo ba pare bu la neexee nga bës like bu la neexee itam nga daal di abonné ci ni mu gën a gaawee ngir lépp lu Fall Damel def ak i naataangoom nga daal di cay jottoo ci ni mu gën a gaawee su noppee nag daal di bës ci ni mu gën a gaawee cloche de notification bi ngir lépp lu nu def nga mën cee jot ci ni mu gën a gaawee ngir lépp lu nu def ngir nga jot ci mu daal di sonné signalé ci sa téléphone portable ak Thiès Info léppay leer ak Thiès Info dara du leen ump ci askanu sunu gaal ak Thiès Info information à temps réel Thiès Info vous informe tous les information à temps réel Thiès Info di leen ñaanal jàmm jàmm ak salaam ñu koy ñaanal sunu bopp di la ko ñaanal yow mi may déglu di ko ñaanal askanu sunu gaal gi yépp jàggeen jëf